Matthieu saar ñett ca jamono jooja Yaxya feeñoon na di waare ca màndingu Yude nii la doon waaree tuub leen seeni bàkkaar ndaxte nguur yàlla aji kawe ji jege na Yaxya mooy ki ñu doon wax jaarale ko ci yonent yàlla Esayi bi mu naan am na baat buy xaacu ca mànding ma ne xal leen yoonu borom bi jubal leen fi muy jaar yax yi nag mi ngi soloon mbubb mu ñu ràbbi karawu giléem takk giñoog der ci ndiggam ay njéréer la doon dunde ak lem noonu ñépp génn jëm ci moom ñi dëkk yerusalem ak diiwaanu yudde ak waa dexu yordaan ñu nangu seeni bàkkaar yax sóob leen ca dexu yordaan noonu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 man ma soxla nga sóob ma ci ndox te yaa ngi ñëw ci man yéesu tontu ko bàyyil noonu ndaxte war na noo mottali lépp lu jub noonu yaxye nangu bi ko yaxee soobee ca dex ga yéesu génn ca saasa asamaan yi daldi ubbeeku te yaxye gis xelum yàlla wàcc ci melo pitax ñëw ci kaw yéesu te baat bu jóge asamaan dégtu ne kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa ame bànneex